acca jërë ngeen jëf ci taamu bi ngeen taamu seen sit bi di wasaare ak Dakar Midi amaat nañu mbégte ak kontaan te jàkkaarloowaat ak yéen comme ça su nekk nu ñu koy defee xew-xew bu am dañuy daal di wàcc si terrain bi daal di gisee askan bi waxtaan ak ñoom tey nag dañuy waxtaan ci li nga xamante ne nii moo xew Sénégal démb ak barke démb muy violence bi nga xam ne am na ci làmb ji suñu ko xootloo muy diggante ki nga xamante ne nii moo di Papa Sow ak Siteu violence bi nag metti na lool ñu gis nag sénégalais yi ñoom tamit am nañu seen xalaat am nañu si lu ñu war a wax dañuy wàcc rek suñu micro ñoom tamit ñu wax si ndax kat dama koy faral di wax saa su nekk seen mbégte mooy suñu yitte aci salaamaaleykum kilifa gi nuyu naa la maa lay fay yaay booy yaa ngi ci jàmm ñuy sant Serigne Touba booy tur bi nan la man lamp laa tudd lamp lamp naka nga gisee bi nga xam ne am na ci lamb ji doy waar rek ñu koy ñaawlu mënuñu comprendre ñun ay en tant que jeune Séné jeune sénégalais nga xam ne ñoo war a doon euh, ñoo war a doon yi ñoo war a ñun garder suñu réew suñ fukki loxo juróom mais léegi ñun au lieu ñu garder ko ñun ñoo koy yàq man dama dem keroog stade dama tiit sax avant sax Papa Sow moom avant may ñëw si Papa Sow booy da ngay yóbbu sa moto premièrement booy di jàllale moto yi nii si ama nga miiru dafa gàtt moto jaamur yi nii di ko jàllale su police yi ñëwee ñu dawaat ñëwaat da ngay yóbbu sa moto da ngay dem ba sax doo am fitu yow di dem lamb waxuma la sax ay yóbbu ay moto sax yow sax uniquement rek da ngay dem ba di nga da dem ba doo sawar sax yow pour yow ah bëggal sa xol mooy tax nga dem de ak am sa mbër wala soit même boo amul mbër sax amateur quoi ak bëgg lamb parce que am na ñoo xam ne mbëri yóbbu leen fa bàqoo leen fa yóbbu ak woy sama classe gi keroog làmb ji aw ma fa mbër Siteu du sama mbër Papa Sow du sama mbër dama dem ngir sama deretu lamb ji di daw di daw sama yaram est-ce que de parce que man fay laa san doomu séeréer laa cosaan laay dund mais li amoon bu njëkk jamonoy ñoom tey seen xam nga ñun génération boobu lañ fekkee bu njëkk donte làmb doon na yàqu sax mais supporter daawul yàq làmb supporter yi dañuy ñëw def seen xam nga délégation ne seen kaw ne seen kii seetaan seen i mbër mais stade bi tant changé wuñ ko tojuñu ko defaraat ko wala ñu jëlee ko fi mu nekk waxuma la ay làmb yi de ay làmb si tey yii nii de mais làmb bu fi am du egg. jege na suuf saisi gars yàq nañ ko kenn xamatul maanaam daal làmb man instant bi dama si tiit dama si découragé wu boo gisee mbër yu bëri jóge si réew mi nii di daw di dem États-Unis man gis naa ay mbër yoo xam ne nee nañ siiw pour am combat amaat combat ñu may leen visa ñu dem seen yoon par parce que gisu gisatuñ seen bopp si làmb ji yaa ngi dégg ndax làmb léegi amatul organisation CNG fii lañ nekk di dagg mbër yi di utiliser mbër te defuñu seen liggéey imaginel yow nga ñëw si làmb yaa ngi dégg Papa Sow Baye Demba moo koy tëggal kii Jili moo koy tëggal léegi nga jël Baye Demba teg ko si côté si côté Siteu jël jël Jili teg ko si côté Baye Demba si côté Papa pour lan loolu. kii kay mooy tëggal kii na yem fii kii ñu tegal ko ay ay ay ay barrières mu taxaw fii war a yem fii war a yem fii biir géew bi sax waruñu fa daje. dañ war a taxaw bu bu kii demee si biir géew ba yaa ngi dégg kii taxaw xaar ko bu soxlaa si géew ba ba kii génn keneen ñëw génn organisation moo amul Modou Mbaye keroog wax na ko mais leer na ma ne li mu wax moo tegu barki Seera Fall nañ xoolaat suñu bopp suñ cosaan bii buñ ko kii sponsor yëpp taw nañ dem nañ ba léegi lam balaa boo deful code sax maanaam mun nga si perte ndax ñu bëri nangootuñ dem lam dagg bi am ñoo xam ne ni dañuy préféré toog seen kër seetaan ko man daanaka léegi boo moytuwul noonu laay mujj def parce que da ngay dem esaat leneen mun na la fa dal. yaa ngi dégg man daal rafetlu rafetlu wu ma ko dara. su loolu weesoo nag si Papa Sow laay ñëw. responsable man dama ko nawoon dama ko fonkoon mais Papa Sow daf ma bett parce que moom warul ñëw di bëreeg booy bu ndaw. yaa ngi dégg may na ko sens ñëpp xam nañ ne Papa Sow du ragal mais keroog affaire ragal la woone parce que warul ñëw di dem si ay tëggkat fii laay jaar fii du fa jaar muy këf ñëw si ñoom dugg attaqué nañ ko léegi laa ko seetaan moo dem attaqué gars yi songu leen. que loolu du yoon nit da ngay rafetal boo nekkee mag féete say rakk ne ci ginnaaw da war a bon da ngaa a wane bon bon image boo xam ne ni waaw waaw moo moo loolu quoi ñii ñëw dañ ciy wane mais bu defee loolu beneen mbër booy ndaw yi ñëw di def loolu tamit du sotti quoi nañ xoolaat seen bopp mbëri mag yi nañ xoolaat seen bopp rafetal làmb ji ñun làmb lañ am amuñu leneen waaw. ci salaamaaleykum kilifa gi ziar naa la. maaleykum salaam soxna si. noo def. ça va. tur Ndaw Samba Samba naka nga gisee violence bi nga xamante ne ni am na ci làmb ji keroog. waaw violence bi moom naxari na bépp sénégalais xam nga mbër yi nañ ko nañ ko teg si yoon. promoteurs yi teg ko si yoon supporters yi teg ko si yoon xam nga bu ko ñëpp tegee si yoon rek bu ñu déplacé woo dem stade seetaan yi ñëpp dañuy am lu la neex waaye buñ ko tegul si yoon kenn du am lu la neex waaw. tey diggante ki nga xamante ni moo di Papa Sow ak Siteu est-ce que loolu waroon na xew seen diggante. waaw parce xew seen diggante. ndax euh, euh, bi combat yi tijjee ba combat Zos ak kii taxaw ñu ne woon combat bi mooy tijji affaire yi combat boobu ñëw gën a yées sénégalais yi kenn rafetlu ko neexut neexut comprendre nga beneen combat ñëw combat bu gën a dàq combat Zos ak beneen ak combat bi jàll ne comprendre bi mooy Siteu ak Papa Sow combat bu gënoon a suqali combat yi combat bi nga xamante ni moom la supporter yëpp waroon na commencé di dem si làmb ji di seetaan yi comprendre nga combat bi yàqu niñ ko niñ niñ niñ niñ niñ niñ doxalee si combat bi neexul askan wi neexul supporters yi kon instant yi supporter boo xamante ni combat amati na fi ah mën na sax bañ a dem ndax parce que day dem ba àgg dagg biyam toog di gis lu ko neex loolu dafa métti si xol combat bi moo waroon a defar combat yi nga xam ne ñu ngi ci ginnaaw comprendre nga ñu man combat bii nii billaahi bugguma woon ñu ñu ñu taxawal ko sax combat Balla Gaye ak ak ak ak ak euh, kii Bombardier laa bëggoon mu taxaw nga xamante ni boobaa supporters yi daan mën a bég xam nga Balla Gaye du yàq ko du yàq lamb moom moom arbitre day siffler mu def li muy def comprendre nga supporters yi bég waaye nii ni ñu yàqee lamb ji prochaine fois képp ku bëgg dem stade da xalaat loolu ba doo dem. d'accord salaamaaleykum kilifa gi nuyu naa la. soxna si maa ngi lay fay. maa ngi ci waaw maa ngi si jàmm. bi nan la. man euh, Saliou Diome. Saliou naka nga gisee violence bi nga xam ne am na ci làmb ji si diggante ki nga xam ne moo di Papa Sow ak Siteu. waaw moom xam nga doy na waar trop doy na waay trop combat bi moom doon na waa trop waaw Siteu man ak moom ñoo bokk dëkk Baye John waar xam nga mais Papa Sow nag pour man moo xaw a tooñ boppam quoi benn côté si benn côté boo xamante ni moom moo xaw a tooñ boppam keroog stade dem naa Siteu man mag la quoi si man xam nga Siteu man man ak moom ñoo bokk dëkk John waar man nag combat bi nag man moo fi indi quoi waaw benn instant sama benn yaay laa seet si géejawaay mais man waa John waar la ak jàmm gën instant Papa Sow benn mu ngi saraxe Gora Sock moo leen saraxe keroog maa ngi si stade bi A ba Z man mën naa la kaa wax A ba Z Gora Sock moo doon saraxe nu muy saraxe dem si supporter di cité ak tëkkati cité yi di saraxe xam nga gars yi nag léegi attaqué ko ne noo non fii yow doo fi saraxe damal nga saraxe nële xam nga mu ñëw Papa Sow na ko lan la mu ne ko gars yi damay saraxe. mu ne man du ma saraxee est-ce que Papa Sow ba muy dem mu ngi yore begu naaw naaw Papa Sow su boppam moom ci boppam begu naaw naaw la yore dem di xàcc di dóor avant mu dóor xam nga rek si jaxasoo boobu noonu xam nga deretam nag moom pour man fu mu jigee la deretam mais newul si waa Kër Cité yi non non. nekkul ko yéen a ko xaañ. newul ne ñoo ko xaañ parce que xam nga rek stade bi yëpp Cité la. stade bi yëpp ak lu ko wër Cité la Cité rek suñu borom da koo may te jaam ñu loolu la ñu war a xam. Siteu dafa am loo xamante ne ni maanaam du moom Siteu moom loolu moom du moom nit ñi ñoo ko bëgg te yàlla rek tax est-ce que comprendre mais maanaam Pape Abdou Fall tamit xam nga maa ngi ko sikk tamit bàyyi si benn côté ko waa benn instant xam nga Pape Abdou Fall. parce que normalement waa kër Siteu ci boppam supporter Siteu yi dëgg la stade bi ñoom ñoo ko moom mais Siteu fu muy bàkkoo ci benn Siteu moom fu muy bàkkoo tëkkatam yi fii lay war a nekke si te nekkee nii Papa fu muy bàkkoo tëkkatam yi nii lay war a nekkee xam ne bu jugee rek si tëkkatam lay dem direct xam nga am déet léegi si ta fu muy bàkkoo Papa foofu lañ nekk Papa Sow fu muy bàkkoo si ta foofu lañ nekk kon jaxasoo day daal di am jaxasoo day daal di am waa CNG foofu noonu bàyyi nañ ko xoolaat maanaam jaxasoo day xam nga foofu moom jaxasoo tamit xam nga dafay am am déet voilà tek ci tamit lu mu indi tamit si ay buum doyut xaw ma 400 buum la wax xaw ma 500 buum mais doyut parce que mbooloo mi rek laa lay waxal ni mu ëpp buum yi fuuf wóor na Serigne Bamba Mbacke billaahi wallaay taalaay Siteu nag moom xam nga di ko ñaanal jàmm xam nga sama mag la xam nga di ko ñaanal tamit jàmm maanaam am na loo xamante ni loolu nee naa loolu moom suñu borom la loolu loolu suñu borom la moom nit ñee ko bëgg te yàlla tax barki alxuraani karim jàmm gën gi yëpp dañoo génn waala waala yu mën combat bi xoolal koñ ba keroog xool lépp jàmm barke alxuraani karim papa sama ak baay di ko ñaanal jàmm quoi xam nga di ko ñaanal jàmm xam nga mu am tan tamit si jàmm xam nga ba ñëwaat tamit xam nga waaw ci làmb ji incha allah bu neex yàlla suñu borom te xam na rek xam nga làmb ji daal xam nga génnul Sénégal quoi waaw làmb ji génnul Sénégal te ñun ñëpp ñoo ko bokk. d'accord salaamaaleykum kilifa gi nuyu naa salaam fay naa la. tur bi nan Tamsir Tamsir naka nga gisee violence bi nga xam ne xew na ci làmb ji muy si diggante ki nga xam ne moo di Papa Sow ak Siteu. ah di ko ñaawlu rek comme ni ko ñëpp di ñaawloo rek làmb moom dafa war a doon loo xam ne dafa war a defar mais bu demee ba doon loo xam ne day indi ay violence di indi yàq si askan bi làmb bu amee fu ndóori ñun mënatuñoo liggéey dimanche liggéey làmb bu amee xale yi dañuy génn fu noonu xale yi ke amatuñu yar amatuñu éducation bu làmb commencé ku si yor sa jaas yor sa dara police sax mënatuñ leen sécurité léegi. dañuy génn di wër fii bu dimanche amee ñun dañuy fat suñ bagage yi duñ liggéey dañuy xëy toog na nii la te làmb daanaka ñi siy gañee ñaari nit la ñetti nit loolu bu demee ba indi violence boo xam ne Sénégal yëpp ñi si ëpp mënut ñoo liggéey man dama gis sama gis-gis pour ñu arrêté ko moo gën ko waaw ñu arrêté làmb ji waaw ñi te liggéeyatuñ Sénégal avancé wul làmb bi mu amee léegi fu doon làmb dañ daan siy dund di si bég ñëpp di si dem di seetaan mais léegi fu làmb bandi rek ñoo koy seetaani fundoor da gis boo demee borom moto yi fundoor yi boo waree génn sax gars yi ñu ngi yor seen i jaas di nangu nit ñi seen moto yi da gis ku liggéey ay zane ñaari nit ñëw yàqal la ko si loo xam ne wala ñi ray la boo jëree bu la lim leen jara bu la ko jaralee ñu ray la nga ñàkk non loolu leneen waroon na ko man sama gis-gis ñu arrêté làmb tournoi yi nawetaan yi xew léegi sax dañ ko war a arrêté bàyyi championnat yi ñuy suyee ndax violence bu am Sénégal léegi xale yi ñàkk nañ yar ñàkk yar goo xam ne kenn mënu la ko expliquer éducation moo des non tey nit dafa war am éducation nit boomul éducation lu ne mën na koo def lu ne mën na koo def. asalaamaaleykum kilifa gi nuyu naa la. maaleykum salaam soxna si fay na. yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant bu baax. tur bi nan la. Ali ñuy wax ci violence bi nga xam ne am na ci làmb ji muy diggante nga xam ne moo di Papa Sow ak Siteu naka nga gisee loolu. waaw du ma ne sax diggante làmb ji. ëllëgu Sénégal man instant nii c'est tiit gannaaw bu mu nuyoo Sénégalais yi ba pare parce que Sénégal li koy tardeel mooy ndaw loo xamante ne ni amagoo 15 ans jëriñoo sa papa dara jëriñoo sa yaay dara mais xale bu ndaw day génn dem ñafe ji ñëw faraatu benn as tuutam nga dogaale ko nangu lim yor fi mu nii nit day am 2 millions wala 3 bëgg a jënd bagage toog liggéey mais sa xel dalul tey buñ jooy lenn ñu ne politiciens yi ñoo ko teg ñun suñ bopp ñoo amut yar na ma yàlla baal nag ci kàddu ji loolu moo fi nekk. tey boo xoolee ñiy wër di agressé si mbedd mi amaguñu 15 ans yu mat waaw léegi ñooñ buñ leen yoree bañ dem ba am 30 ans jëm 40 35 ans fan la Sénégal jëm ëllëg li ma gis de bu fekkee moo nekk senegal gars yi jëluñ seen décision bopp Sénégal du avancé tey boo jëlee 3 milliards tabax benn kii gars yi ñëw toj ko nga jëlaa tabax ñu toj ko ban sens la amul benn sens kon man damaa tiit si ëllëgu Sénégal. man nag yàlla dimbale na ma topp ma si kaw kenn maa ngi yor sama njaboot ak sama famille saa yu ma xëyee faraatu ji sama benn dix mille franc quinze mille lenn li ma denc lenn ma dépassoo waaye nag su làmb amee fii di jiwaanu parcelle man suur boobu du ma xëy liggéey sama kër laay toog du ma liggéey parce que booy dañ lay fekk nga yor lu tuuti nga nangu ko sooy jijalee sa arme risqué koo si gaañ si kaso gi nga jëm ñoom suñ nga gaañee du mujj fenn réew mi ñu ko jiite nañ xool ni ñu koy doxalee. réew mi doxaluñ fi dara bu ñu bañee ku leen sikk buñ jël réew mi di ko jiite réew mi ku ko jiite dañ la sikk nañu jël seen responsabilité sécurité bi ñu matale ko ku def loo wartu def ñu jàppale bu ñu tëj ci kasu gën nañ la dóor ba ngay bëgg a dee ñu bàyyi la bu keneen defee ñu dóor ko ba may bëgg a dee tëj bi day sonal nit rek. nuyu naa la. waaw maaleykum salaam ça va. ak ci jàmm. sant bu baax a baax. tur bi la. Babacar. Babacar Babacar naka nga bi nga xam ne am na ci làmb ji. waaw violence bi si laa la wax dëgg yàlla nekkul rafet quoi pour man parce que fii Sénégal la te réew mi ñun ñëpp yaakaar naa kenn ku si nekk war na see mën na bay waaram ba mu mat quoi parce que làmb ji su yàqoo Sénégal la yàqul parce que yaakaar naa sport bu ñu gën a am bu mag làmb ji la quoi parce que amuñ fi ay maxi amuñ fi leneen làmb ji lañ fi am te wax dëgg yàlla li ma gis nii daal si réew mi jëkku rafetut depuis ay at a ngi nii kenn xamul làmb ji lu muy saf si réew mi. ba dëgg yàlla am rafetul daal pour man euh, seen yi nga xamante ni ñoom la fi làmb ji nekkal war nañ see mën a bay seen waar bu baax a baax a baax xam ne si yàqoo tamit ñun la yàqul waaw mais nag ñi gën a bëggante gën a jàppante xam ne lépp réew mi la rek te lu jugee parcelle dem géejawaay gi génnu Sénégal lu jugee parcelle gi dem Kaolack génnu Sénégal lu jugee Louga dem feneen tamit génnu Sénégal lépp si réew mi la quoi kon xam nga lépp war nañ koo mën a rafetal quoi pour man yaa ngi dégg mbër mbëri mag yi tamit moom man moom maa leen sant quoi yi mag yi ñu demee ay ñoom bala Gaye amul seen molo ñoom ñoom ñi fi jot a jaar yëpp wax dëgg yàlla am seen carrière rafet rafet na daal mos ñoo yàq làmb ñooñu mos ñoo yàq làmb dañ fi daan am ay événement ay tàkkusaan dëkk bi neex yaa ngi dégg foo tourné dégg Molo Balla Gaye amul seen nangam nangam werante bi neex yaa ngi dégg mais comme li xew nii nii surtout barki démb Papa Sow Siteu jékku rafetut man moom rafetloo ma ko su ma sañoon daal moom ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk si laamu ji danañ gën a toogaat gën a waxtaanaat ñu xam ne lii suñu yëfu bopp la si yàqoo ñun la yàqul ñu waxtaanaat si bu baax a baax. asalaamaaleykum kilifa gi nuyu naa la. delloo naa la. ci sant yàlla bu baax. bi nan la. Babacar Guèye. Babacar naka nga gisee violence bi nga xam ne am na si làmb ji bu ñu ko gisee lool ci diggante ki nga xam ne moo di Siteu ak Papa Sow. ah làmb ji de moom xam nga ne problème rek laa yokk suñu réew. instant bii ci li ma gis problème kese laa gis ndax làmb saa su amee dina am bu di 500 personnes ñoo ci nekk parce que boo xoolee ñëpp 9 personnes ñoo si am problème ñi dem làmb deen am problème ñi ñi demul toog di doxi seen soxla dina am problème. te loolu xam nga wax dëgg yàlla du kii bu fekkee ne làmb pour sport pour jàmm ak salaam la pour boole moo tax amut fi instant bi gisuma ko fi de. parce que chaque jour yow booy bu ñuy dem dañuy agressé ba yegg bu ñuy retourné dañu agressé te mosoo dégg làmb jógee làmb ba pare déggoo nit ku ci dee wala ku ci damm. wax mu bu fekkee mos nga koo dégg xam nga chaque jour nga dégg problème football bi làmb ji instant bi moom defarut fi dara ci dëkk bi yàq kese laa fi gis stade bi ñu doon yàq démb démb ñaata personne ñoo fi dee waaw ñaata personne cinq laa dégg de xam nga loolu du yoon chaque jour na nga dem stade am ba problème fu ne nit ñi ñuy liggéey lii vendredi lii samedi kenn liggéeyatul ah. buñ la rombi agressé te loolu du yoon xam nga sport moom dafa war a boole sport discipline la laaj te loolu gisatuma ko ci sport bi mën naa wax ne wàllu armation bi sax laa ci gën a tere que loolu parce que ñoom yar nañ la ci éducation mais ñii mbëri fi ne defatu yëfi nit ñi nga xamante ñooy seen fan sa defatu yëfi nit xeex xuloo rek te loolu amul njëriñ wala yow da nga ciy gis njëriñ ah man de gisuma ko ci wax acca jërë ngeen jëf yaakaar naa ne nii lañ leen ko waxee woon tey nag ni ngeen ko doon gisee ñu ngi woon fii si rond case bi di waxtaanee violence bi nga xam ne am na ci làmb ji dégg ngeen askan bi lu ñu ci wax nee naa leen chaque jour ñun waa wasaare ak ñun waa Dakar Midi xew-xew bu amee dañuy préféré rek dal di wàcc si terrain bi daal di giseek askan bi wax ñoom tamit ñu wax seeni xalaat ci li nga xamante ne nii moo xew wax nañ tamit si li nga xam ne moo di violence bi li xew fële si stade Ngalandou Diouf bu Rufisque dégg askan bi tamit wax nañu si nañu bàyyi bi te xam a ñun ñëpp ñu benn lañ ñun ñëpp ñoo bokk ñoo bokk bàyyi violence amul benn njëriñ nañu mel nañu meloon rek doon Sénégal dëkku teraanga te bañ a doon Sénégal dëkku violence dama si sant nag ñi nga xamante ne ñun moom ñoom ah, ay seddéegoo bu Sambé ñoom xamuñu violence ñoom jàmm lañu xam ak salaam ñoom luñu lu dul lu dul jàmm ak salaam ñoom xamuñu ko sama gaay yooyu yal na seen jàmm yàgg merci beaucoup Abou sama caméraman bu gàtt bi nga xam ne moo dagg sama chaîne bi ni seenu or la dañ ma koo jox keroog mu dagg ko moom def maa iñaane def maa tëgg bët waaye duma ko ko jàppee jox leen rendez-vous ba beneen yoon incha allah ak wasaare ak Dakar midi jaajëf.